في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه jërëjëfati Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne maam Cheikh Rahima Fall Lamp Babil Mouridina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi jàkkaarloog ñun seen télévision RTT TV ñu ngi leen di nuyu leen daan nuyoo ci seen jotaay bi nga xam ni moom la ñuy jotaayu safar wi ngir waaje ko màggal gi nga xam ni moom la sëriñ bi digle woon ci weeru safar wi ni nan ko santale boromam ñu sant ci yàlla bu baax ndax nëgëni si daaw lañu ñu àndoon ak yéen tay yi di wax sunu borom mi nga xam ni ci kàttanam ak mbaaxam ñu ñaanoon ko mu may ñu at yii di ñëw ñu fekke ko loolu it ñu sant ci yàlla bu baax yàlla may nañu ñu fekke ko atum ren ñu ngi toogaat di ko ñaan mu mayaat ñu ñu fekkewaat ko at yi nekk sunu kanam waaye ñu siyaare bu baax kilifa diine ji nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp. jiital ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu nuyu ko ziar ko bu baax ndokkale ko ci weer wu tedd wi nga xam ne barki démb rek seetaan nañu déclaration bu am solo bi nga xam ne def na ko ci jullit yi nga xam ne moom la bokkal réew mi waaye def ko ci ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi dunde ak di xaar ndigalu sëriñ bi muy képp koo xam ne yàlla mën loo nal ko na nga jàng alxuraanul karim wàcce ñetti kaamil boo ko mënul nga santaane ko loolu mooy ndigal li nga xam ni moom lañu ñu ubbee weeru safar wi itam jóge ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ñu koy fàttali mbokki taalib yëpp képp ku ko yàlla man ñu defandoo ko ndax tawféex rek lay jur ci ñun bu ko defee ñu ziyaare bu baax sëriñ am ni Modou Mbend Fall xalif général des Baye Fall nuyu ko jox ko wàccuwaayam bu baax jaare ci moom nuyu mbooleem njaboot gi yëpp ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa sunu borom guddal seen fan te may bu ko defee rek ñu am mbégte tey teewal leen ci seen émission wàccaayu màggal fii ci pàkk bu sell bii di quartier Cheikh Abdoulaye ay dara ñu sant ci yàlla bu baax ndax ren nii ñu ko baaxoo amale mbooleem penc yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bii di Thiès fa lañ fas yéenee amal jotaay yi nga xam ni mooy jotaayu wàccaayu màggal gi Thiès nag damay wax ni kenn mënta wax te tàmbaleewoo ci Cheikh Abdoulaye Yaqin ngir taxawaay bu am solo bi bi nga xam ni am na ko ci réew mi waaye rawatina fii ci Thiès muy cërub waa Thiès ñu koy tiitaroo te di ko sagoo barab bii nga xam ni moo nekk fii ci penc mi murit yépp dañ fi ñëw di diis seeni aajo di fi faggoo seeni dund ngir sunu borom ñoŋal ko ngir sunu borom baaxal ko loolu it ci tawféex googu it moo waral tey ñu sol suñuy dàll ànd ak équipe technique bi yëpp ñëw ni dañuy yeesale bis bi fii ci penc mi waaye fii ci biir barab bi loolu it ñu am ci mbégte ñaanal soxna si bu baax soxna say bataay dara sunu borom guddal fanam gën ko fee bàyyi te may ko wér ñu jaare ci moom it nuyu mbooleem njaboot gi yëpp waaye jël nuyoo yi ak ziar bi yëpp teg ko ci kenn ci kër gi yore kàddu kër gi di Serigne Mor baax Serigne moor Ba moom la ñu am tey sax ci jotaay bi incha allah di ngeen ko gën a gis ci leeral yi incha allah bi waaye ñu dalal ko am mbégte bu baax ci ànd gi mu ànd ak ñun jotaay bi waaye ba tey ci jotaay bi ñu am ci oustaz Mbaye moom it di kenn ci ñun di jàmbar lool di koo xam ne saa su nekk ñu ngi koy woo ci kër gi muy ñëw di ànd ak ñun jotaay yi Serigne Mbaye Thiam ñu nuyu ko bu baax ziar ko am mbégte ci ànd gi mu ànd ak ñun jotaay bi. waaye xam ngeen ne jotaay yu mel nii saa bu ñu leen ko indilee danañ leen tànnal kenn ci jànkatu xaside yi ngir mu ànd ko ak ñun tey ñu tànn Serigne Modou Guèye di jànkatu xaside bu am solo moom it nekk ci dëkk bi ah, moom it di ngeen ko dégg bu ci kanamee bu ko defee rek ñu jël kàddu nuyoo yi ah, jox Serigne Mor Ba mu nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog moom di seetaan ah, bu ko defee ñu nuyu la sëriñ moor bàyyi la rek nga nuyoog mbokk yi incha allahu rabbi bismillahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin seydina wa mawlaana muhammadin al amiin wa ala aalihi wa saxbihi wa xaddimihi wa ummatihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi diini rabbil aalamiin amaa baxdu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi topp si RTT TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen jot li nuyoo ko tedd ki muy soxna Saybata Aydara bintu Muhammadul Mahdiyu Abdullahi li yaqinul mubaarak sajil xaale mi turon yàlla na ko fi sàmbaram doole bàyyi bu baax a baax waaye di siyaar bu baax bopp yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir mi nga xam ni tey moo toog si jataayu sëriñ bi ak alayhi akbaru ridwaani bi baaxil xadiim waaye di siyaar bu baax sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall mi nga xam ni moo toog si jataayu maam Cheikh Ibrahima Fall xalilullahi baabul muridin waaw di la siyaar bu baax sëñ Xaadim ak mboolem ñi ñu bokkal plateau bi ak mboolem techniciens yi nga xam ne ñoo yor xarala gi si weeru tedd wi mu Cheikhul Safar ñu jëm bis bu màgg nag di fukki fan a juróom-ñett dëppoo ak màggalu sëriñ bi am nañ ci mbégte lool dalal leen fii ci barab bu sell bi ah, di am yaakaar ni mbooleem kàddu yi ñu fi war a yëkkati yëpp dina nekk njariñ si mbooleem yoonu murit waaye ci mbooleem jullit yi ak mbooleem bindeef yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam jërëjëf Serigne Mor baax jëwrin ñu am mbégte bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom la ubbee jotaay bi di kàddu yi nuyoo. waaye ñu jaajëfal ko bu baax ci yitte yi nga xam ni it may nañ ko ci kër gi nga xam ni mooy kër sëñ Abdoulaye Yaqin ñu jaajëfal ko bu baax am ci mbégte bu ko defee oustaz euh, mbay Thiam yooyu it ñu bàyyi la nga nuyoo bu ko defee ñu soog a tàbbi ci waxtaan wi incha allah. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين وذكر لبي وافتح عن رب لي فتحا مبينا لا يرى لمثليه واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نبير وقلبي أرشدا gannaaw ba nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam jaajëfal sunu yaakaari teeg ëllëg Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul ñaanal Cheikh Mamadou Muntaxa sunu borom defal ko yàggu ànd ak wér ñaanal ko am Amdi moom Serigne Modou Mbenda waaye di ko ñaanal bu baax soxna say bata mi nga xam ne moo fi toog jotaay yëpp Cheikh Abdoulahi Yaqin di am mbégte bu baax ci pàkk bu tedd bi nga xam ne moom lañ tànn ngir ubbee liggéey bi loolu na lool noo ko ci am bu baax a baax di la ziara bu baax Serigne Khadim di kilifa gi nga xam ne moo yor kàddu kër gi mu Serigne Mor di ko ziara bu baax di ziara Serigne Modou mi nga xam ne moom lañ war a àndal ci xasida yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy teewlu jëpp noo ngi leen di ziara bu baax a baax a baax macha jërëjëf jërëjëf oustaz Mbaye Thiam nuyoo bi am na solo ah, ñu am mbégteel bu baax it moom it dalal ko ci jotaay bi mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee sànq rek incha allahu rabbi jotaay bii tey kenn ci góor yàlla yi dëkk bi lañ ko jagleel di Serigne Abdoulaye Yakhine ah, Serigne Abdoulaye Yakhine nag ku wax cees wax ko waaye ku wax yoonu murit wax ko bu ko defee dana gën a leer ndax sëriñ Mor dina ci ñëw waaye it oustaz Mbaye Thiam dinañu ñëwal ci màggal gi nga xam ni moom la sëriñ bi waxoon ni nan ko ci sant le boromam di 18 safar li ko waral incha rab rabbi sëriñ Mbaye Thiam dina ci ñëw ndax dégg génn sëriñ Moussa ko wax ni ku màggal bi su tukkeem ba jiyaar nga aj nga umra nga waaye am nga yool ba loolu it tawféex googu mu ñu fàggul te lépp li ko waral mooy tukki bi kon tukki bi it mooy màggal gi incha rab rabbi it dinañ ci ñëw lu gën a yaatu waaw bu ko defee rek sëriñ Modou Gueye nga jël micro bi yow tubaarkàlla ci incha allah ko fas yéene euh, doxale rek incha allah euh, jotaayu murit moom xasida yi du ci mën a ñàkk ñu dundal ko ci xasida waaye Serigne Modou Gueye tubaarkàlla saa su nekk dañ koy béggee te namoon ko lool ci bokk ak moom jotaay bu ko defee Serigne Modou ñu jox la kàddu incha allah. auzu billahi mina seytaani rajim way mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi eh, sëñ Muntaxa Basiiru Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te di siyaare bu baax sañ am di mu du benn Fall ñu ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te di nuyu kilifa diine yëpp rekk ak kilifa aadi yëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di siyaare bu baax sëñ Xaadim ñu ngi lay siyaare bu baax di siyaare sëñ Mor Ba mi xam ne mooy jaaroonu kër gi Eh, di siyaar baax sëñ sëñ bi ñu koy siyaar bu baax moom itam eh, di rafet lu baax jotaay bi di ñaanal soxna say bata mu yàgg fi lool te wér ba yeneen ci sëñ Tuubaa ma ko ni mu ko soobee ànd ko mu taal bi yëpp jërëjëf amin nga ubbil ñu rek xasida incha allah ñu xool ban xasida nga ñuy indil ñu barkeeloo ko ci jotaay bi incha allah bismillahi rahmaani rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يقيني إلى الجنة ما ليس يخمد رسول كريم بيتنا زار أحمد يقيني إلى الجنة ما ليس يحمد رسول كريم بيت العزار أحمد أغاني أسى والموت والجال سرمدا رسول سفي في البرايا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداي خرس والخود أحمد لا ما مدد المصطفين درجات أكون بها بصرا لمن دام يسجد مدات جواد الباسر البار مسبدا ومن جودي علم وأمر وأسجد عيد إذا ما سار أو سير سرمدا بدا مخجل البي لشي ليس يسجد كريم إسا وجات وخاد للمنى ببشر وتامن مولاي أعبد ساما الأبادين الذي دين والهدى وخب الذي رب الورى ليس يبدو شكري لربي بامتداء محمدا عليه سلام الله ما دام يغمد sukuri li rabbi bim ti daa'i muhammadan alayhi salaamun laa imaana ma yuhmadu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin. Masha Allah jërëjëf jërëjëf Serigne Modou Gueye macha allah ci ubbi gi am na solo lool jaajëfal la bu baax tubarkàlla ñaanal la sunu borom dooli say tawféex bu baax ci xasida gu am solo gi nga xam ne moom la ubbee jotaay bi ñu ngi ñaan sunu borom nangul ñu lépp te defal ñu ko ay tawféex waaye ñu siyaare bu baax njabootu Serigne Saliou Touré gi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bii di Thiès euh, Serigne Cheikh du Bambal Touré nekk ca ñu ñu ngi koy nuyu te di ko ziar bu baax te di ko jox wàcc waayam bu baax. tey ñaan ci barkeb sëñ Touba sunu borom gën leen fee yàggal wéral liggéey bi nga xam ne it moom la ñuy liggéeyal borom Touba bu defee ñu ngi leen di siyaare bu baax xam naa rek dañuy daaw tàbbi ci waxtaan wi Serigne Mbaye euh, màggal gi nga xam ni moom la ñu dëgmal di màggal fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ni moom la Serigne Touba waxoon ni saa ak seen na ngeen ma ci sant le sunu borom xam naa li ñu dégg yëpp ci Serigne bi mu dénkaane ko ni nañ ma ko defal dafay mel ni lu ko ci gën a yitteel bis boobu dégguñu ko ci ndax lu ci bari joomam ak ngorom ak fitam mayan na ko mu defal ko boppam waaye di safar moom maanaam jëf ji da cee da cee dem ba woote ci ñu ngir ñu jàppale ko ci loolu yi tegtale na kon li muy def lu lu ko yitteel la lu koy ñor la waaye ci njalbeen rek ma bëggoon ñu ubbee jotaay bi lan moo waral màggal gi nga xam ni moom la sëriñ bi wax ni nañ nañ ko ci santale boromam. jërëjëf sëriñ Xaadim euh, lii sëriñ Moussa Ka di wax ni bis boo fi gis ñu di ko woor mbaa ñu di ko màggal boromi xar baax moo fa jaar ba àggal màggal gi li ko waral mooy mooy bis bi nga xam ni moom la sëriñ bi génne woon këram googu di Mbàkke Baari te dara waralul woon génn gi lu dul liggéeyal ji yonent bi alayhi salaatu salaam waaye liggéeyal xeet wi waaye ramm mboolem ñi nga xam ne ñooy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo ko waxal boppam ma wax ni sababu xaybatiyal barida an allaha tabaraka wa taala araada fi l azali an akuna shafian li jamihi talaamisati wa xaala bayni wa bayna nasara wadxala fi xuluubihimul xawfa minni wa faalu maa faalu li alla akuna mutanassiran li anni law nasartu la daxaltu naara waliyaasu billahi taala walakin xasamani llahu taala min annaari wa min kulli ma lam yarda lii bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na li waral sama tukki bii mooy suñu borom tabaraka wa taala moo nam mum ma war a ramm mbooleem samay taalibe loolu suñu borom moo ko namm ca ësal loolu moo tax mu dox doxale sama digganteeg tubaab bi li nga xam ni moom la doxante sa doxale sama diggante ak moom ndax su loolu amul woon rek danaa nasaraanu réew mu yëpp nasaraanu te kon su boobaa sawara dana am wala yaasu bilaa daal nag yàlla musal na ma ci sawara musal ma ci lépp lum gërëmul ci darajay sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam kon loolu mooy sababu tukki bi surug texe la wax na feneen ni sababu xaybati an allaha araada an anaala min ujaa wa nakuna shafian li xaw mi wa nakuna xaadiman fi daw mi li waral tukki bi mooy suñu boroom moo mën na ma jox daraja joo xam ne daraja ju kawe lay doon waaye mu nam it ma doon koo xam ni maay doon xaadimu rasul ca daw me waaye maa war a doon ki war a ramm xeetu sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu moo waral tukki bi nga xam ne bi muy dem ca guddi ga dénkaan ba mu dénkaanoon soxna Faat Ja doomam nettali ko nee na bokk na ca la mu waxoon ni tukki bii ma war a dem laa bëgg ngeen ban ci am gennuk jaaxle ndax damay dem damay dellusi ab liggéey la boo xam ne ku sa bopp féete kaw say tànk féete suuf yàlla jël na liggéey boobu jox la ko waaye kum ko mës a jox yëkkati woo ko ba mu agsi ci say oom man nag maa ko fas yéene ni jànj ba ñëpp di ko séen loolu la tàggook mbokk yi keroog moo tax sëñ Moussa Ka wax ni keroog la Bamba téeñu fab yanam ba wéttali ko yàlla ba dem maayom ba ngir bëgg a ràmm jamono yeneen ba tubaali man xam moo di yan ba yan ban yenoon xut bi ak lab daale te attanuñu ko Bamba ko fab fas yéene jee liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba lislaam nga xam ne booba jamono lislaam euh, tumuraanke na nga xam Cheikh Ibrahima euh, sëñ euh, Ahmadou Diop paxa nee na dañ mel dañ koo tër ba koy waaj a ren di sëñ ñëw jot ko nga xam ni foofu la fekk sëñ mu Ka nee na lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel ni làmbaay Cheikh Bamba ñaan ci barkab jiili ni yàlla maay safiyu kullu jiili maay xaadimu rasul fi soodaani maay ramu xarnu bi anin niiraani foofu la fekk mbir yi nga xam ne fas ko yéene yëkkati nee na njëkk may dem di dajeek tubaab bi sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa njëkk a dajeel mu ni ma nag lislaam menn mbër la dese muy yow waaye ne la wóor ni maa ngi ci sa ginnaaw doo gis dara lu la naqari doo gis dara lu la lor danga dem da nga dellu si waat moo tax mu ni wajaala al muxtaaru sallallahu alayhi fi l ali wa man walaahu loo xijaaban maanixan min a darar summa lahu xaalam si laa taxsal xarar yonent bi nee na ma demal dellu siwaat bu ragal benn lor ndax yow yaay mbër mi nga xam ni yow la lislaam dese liggéey boobu nag ba mu ko liggéeyee ba mu sont jaar fi mu jaar daj ci lu nekk ci ay coono nga xam ne nee na bi ma agsee Ndar rek daj naa fa loo xam ne sama ngor yi ma ma tudd ko wala xiitu fii tilkal te fii tilkal muddati maa laa uskuruhu abadan li ma daj Ndar ci ay mitiit du ko tudd mukk ngir ay teggin sama digg ak sama borom kon ndar ña ngi fay nettali ay gaynde yu ñu fa booleeg sëriñ bi ak yu baree bari ñu koy nettali waaye Sëriñ Tuubaa daal nee na daj naa fa loo xam ne duma ma ko nettali ngir ay teggiin jóge ndar dem ndakaaru lam fa daj ku ne xam na ko ñaari guddeem yooyu nga xam ne coono bu nekk daj na ko fa jóge fa dem ci géej gi daj fa lu méttee méttee méttee nga xam ne nee na xayra xurooju ruuxi lu dul ruu gu génn ci yàpp yaram rek daj naa ko fa ci méttit ci tukkib géej gi nga xam ni kon méttit fu mu àgg rek fu mu yem rek aw méttitam romb na foofu nga xam ni foofu ci ba nee na am na bis boo xam ne dañ koo bàyyi ci benn taatu garab mu yàgg fa lool sëñ Tuubaa moo ko wax sëñ Mat Lamin nettali ko ci rawaaw Nadim nee na bi mu fa yàggee yàggaay bi xaw koo sàppi nee na diggante bi ko bi mu yëg ni yàgg yàgg na fi rek suñu boroom sam ko melentaan yu baree baree bari ñu di ko matt nee na mu xam ni moom jàmbat gi mu jàmbat ni yàgg na fi rek moo tax suñu boroom teg ko teg ko musiba bii mu ni na saxtu bu shukri shikayatan fala askuluhu durri fa durri afala bis ni ki tey nag jaay naa njàmbat jëndee ko cant dootuma dootuma jàmbat mukk nee na sunu borom daal di dindi malentaan yooyu mu daal di noppalu nga xam ne yu sew-sewaan yooyu mu fa daj lu méttee méttee métti ba yàlla dogal nag liggéey bi jeex mu dellu si waat ci réew mii nag nga xam ni bi muy xaatimanteeg suñu borom ci natt boobu ca jàkkay daarul xudduus jooju bañ ko waxee ni ko li nga bëgg mooy bokk ci waaxlu li koy maye mooy tur deret jeex na léegi nag dañ lay teg natt yoo xam ne natt yu métti lay doon limal ko ci ñu ko ci limal ci moo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ñëpp ko waaye nee na bi mu bi ko limalee natt yooyu ba mu ba mu fas ko yéene yennu dem ak moom nee na 18 safar boobu maanaam korog ca Mbàkke Baari nga xam ne ca la ca la waxee ca Mbàkke Baari Jolof nga xam fa la woon di fukki fan ak juróom ko natt yooyee mu génn la muy métti métti métti saa boo déwén sa dellu suñu borom day fab natt yi bu fekkoon junni la mu def ko ñaari junni yokk ko teg ko ci kawam di ko def di ko def di ko def ba mu jóge ci géej gi ñëw dem gànnaar muy wéyal loolu ba ñëw njaarim nag ci at yu mujj yi 1920 21 bi mu taxawee di xaar nattu yi nga xam ne su at mi mësaana del dikk sëñ Tuubaa day taxa saa yu ba dëgër di xaar nattu yi ndax chaque année saa suñu borom da koy gën a yokk bi mu taxawee di ko xaar nag suñu borom ni ko nag nattu yi jeex na bis ni ki tey nag ak payoor moom ngay jot waaye nag li ma lay fayee mooy li ma la daan nattoo nga xam ne su ma la nattoo ren junni déwén dama lay nattu ñaari junni léegi su ma la fayee junni déwén dama lay fay ñaari junni at mu ne suñu borom jox ko ci ay xéewal loo xam ne kenn xamut lu mu toll xasaa inu rabbi futixat li wa zax-zaxat li xeyril aza dunya wa a wa barzaxu nga xam ne magasin suñu borom la ko suñu borom ubbil mu di ci sant di ci sant xéewal yi di bari di ci bari di ci bari di ci bari di ci bari ba moom ci boppam nag mu ne ay la yéwén gi ak cant nag lot naa ci man sama jëmmi bopp biñ demee ci watu 1921 la woote ni kon nag bis bii nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ma génnoon Mbàkke Baare fas yéene léggéel Seydunaa Muhammad alayhi salaatu bam ci ndam lu rëy loolu daal saa bis boobu dikkatee képp koo xam ne sama mbég sa mbég la kon woote bi yemul ci murit képp képp koo xam ne sama mbég sa mbég la te sëñ Tuubaa nag képp ku dëkk ci Sénégal ngay jullit sax wala nga dul jullit sëñ Tuubaa amel nga ko njukkal waaw kon nag bu ne koo xam ne sama mbég sa mbég la saa bu bis bi dikkatee nanga ma ci santale yàlla daal di diggante ginaar ba gëléem lépp lu ci waay def ngir jëmmi yàlla soo lëgee la ma jëlee ci sama tukki bi dara du la ci ump keroog ba mu ko diglee wax na loolu. nga xam ne dafa ne bu dikkatee na nangeen ko def nit tabaski keroog bi mu waxee loolu sax am na menn mag mu ko dégg daal di daal di ñëw ci Sëñ Tuubaa sa tabaski waat goog nga woote day bu dikkee lépp lu ma mën danaa ko ci def Sëñ Tuubaa ko santu leen tabaski waat ni kuy sos sunna man du ma sos sunna tabaski sunu maam Ibrahim moo ko moomoon ak waa këram daal lépp lu yàlla may waaju baax boo ko defee na nga ko war a defee xaj na man nga caa am dara waaye bis ma leen bis bis bii ma leen digal yéen sama ñoñ lépp lu ngeen am addina ak àllaaxira bis bii moo leen ko may lépp lu ngeen mucc addina ak àllaaxira bis bii moo leen ci musal lépp loo xamante ni bii am ngeen ko àddina ak àllaaxira bis bii moo leen ko may kon nag bis bu ngeen mën di màggal bis bii moo ko gën a rëy ci yéen kon nag far leen ko sax tuddee ak màggal keroog la baat bi juddu waaye mag ñi tabaskiwaat lan daan wax mu ne bis buñ mën a màggal biyee ko gën ci nun ndax lun am àdduna ak àllaaxira moo nu ko may lu ñu mucc moo ñu ci musal lépp lu ñuy ñeewee bis bee tax ñu ñeew ko ci mu ne nag kon bis bu ngeen di mën a màggal bis biyee ko gën a rëy ci men leen ko tuddee ak màggal loolu mooy cosaanu bis boobu suñu xaarit tubaarkàlla tubaarkàlla cosaan laa ngi noonu dégg Oustaz Mbaye Thiam ni ñu koy indilee muy lu am solo euh, bu ngeen ci déggee rek di ngeen xam ni sëriñ bi laata may yi di ñëw ci moom euh, jànkonte na ak ay coono yoo xam ne coono yi fokk natt rek weesu na ko waaye bu ngeen ci xamee it ni euh, macha allah ñu yeewi euh, oustaz mu dem nit te ñëw waaw bu ko defee mu ñëwee dabaat ñu bu ko defee rek euh, mu noonu ñu xam ni nattu yi mboolem xeeti metti wala tartar foo ko xayma rek romb na foofu waaye sëriñ bi dëgmal boroomam rek mujj gi dégg nga ci sëriñ Mbaye Thiam ni mu ko leeral rek bi mu demee ba àgg ci maanaam jàmmat wala mel ni kuy ñaxtu sax natt yi daa gën a diis sa kawam loolu it di beneen mbir moo xam ni ah, dénkaane la def naa ci képp koo xam ne yaa ngi topp sëriñ bi wala yaa ngi koy bàyyi xel ah, nga mën a euh, bàyyi xel ci jàmmat wala ñaxtu ah, loolu it am na solo waaye dégg ngeen ci biir wax ji mu wax ni euh, nattu yi at mu mu nekk dañu daan yeesalaat nattu yi gën koo dolli maanaam bu doon benn ci misaal dañ koy ful mu nekk fukk waaye dégg ngeen it bu ñu demee ba fay gi agsi maanaam bu ñu doon fay benn sunu borom da koy ful lu mu ko waroon a fayee benn mu ful ko muy fukk loolu it di leneen loo xam ni tax na ñu war a xam ni dëgg dëgg màggal gi euh, pay la goo xam ni suñu borom euh, ni mu ko liggéey ni mu ko defalee gaa ñu baax ñëpp mbooleem ko ci mos a liggéeyal suñu borom ba suñu borom gërëm la dana la yéegee ci ay maqaama waaye dana la yéegee ci ay xéewal ak i ngeneen ak pay goo xam ni saw ñooñ mën nañ cee jariñu loolu it mooy tukki bi mooy sérité bi nga xam ni sëriñ bi indi na ko xam naa ci kanam tuuti sax danañ dikkaat ak sëriñ Mbay Caam ci diggante sëriñ Tuuba ak yonent bi Euh, sallallahu alayhi wa sallam ni mu meloon ndax kenn ku ci ne xam na ni euh, kii nga xam ni mooy sëriñ bi léppam dundam gi yëpp da koo jeexaloon ci euh, Seydina Muhammad ndax ni mu ko waxee ci moy bu juróom at mi da ko xaajoon juróom benn weer yi da ciy tagg Seydina Muhammad juróom benn weer yi mu ciy julli ci moom loolu it lu am solo la tuwaarkal la dinañ ci ñëwaat ci Oustaz mbay mu indil ci lu gën a tawféexe waaw bu ko defee sëñ Modou da nga ñuy dugaatal nag bëggoon naa fii sëriñ Mbaye génne nga nga xaw ñu koo jege ndax ku wax màggal gi wax jasaawu sakkoor mi nga xam ni ah, ci la Serigne Moussa di leeral yoonu géej gi ci tukki boobu nga xam ni Serigne bu tedd bi moom la defoon xam naa xaw ma ban xasida ngay indiwaat wala nga dugal ñu rek ah, ci ci incha la

ومن يهاجر ومن يهاجر ومن يهاجر ومن يهاجر في سبيل الله نال يالا دفولن كلمه fi daari defal ko ibrahima ba yàlla buur ba faratal tabaski ak tam xarit ne may na ko gaay mbakke bi xidmatil xadimi lil maqdoomi fil bari farlu leen ilaa taxsimi la wesar ladaam wesar ladaam wesar ca mootu yoonu géej ga laay bëgg a ngeen xam ni bàmbaay géej ga boo ko gëmul yoral jasaaw sa koor jawaabi Abdullaahi loolu moo ne dogon ko nag demam ngi walaf nasaraani te billaay ñépp dem niraani ngir booba doomi soxna yaa ngi gaanu di debisi fuuri fafu nasaraanu ñoo jaxasoo kàngam yaag nasaraani ñii di defi xaadir ñii di ànd naani yi doomi soxna dalli sampi daara te donga ñak jigéen ñi mel ni saara siramaan lak saara yanu caawo ndaw jaxasoo bambaare farak caaw sëriñ saanda wuuri fof di daane ñele di tox di foon ñeley doxaani ñele di wañlu ñeley bandaani ñeley terayaaxi ñeley waay ñaani góor ñi jigéen ñi jaxasoo di caaxaan lamb ya gor sabare yépp caaxaan kenn amatul xasul li wàcci laay kaang ki foore faf di jaani laay lislaam di jooy lislaam di jooy lislaam di jooy lislaam di jooy yit ci sow jant fépp mel ni làmbaay Seex Bamba dal di ñaan ci barkeb jiili naa yàlla maay safi kullu jiili maay xaadimum rasul fi soo daane maay rammu xarnu bi a nin niiraani bur yàlla dal di siñe jox yonen ba mu siñe gaaya daa jiital Bamba lisaanul haal daal di waxanteeg bamba jasaari yusufa mu teeñu yan ba bamba ni maay na ma delu lislaamu sëf leen ma juur leen ma dinaa ko jaamu yàlla ni astaxlisu tekli nafsi maa gën a yey ci yan si keroog la ñaan bur yàlla yoonu géej ngir nga liggéeyal musawaay may géej ga subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin jërëjëf Sëriñ Modou Gueye waaw waaw bëgg nañu lool ci taxawaay yi allah xam naa rek moom ñu jaajëfal ko bu baax ci taxawaay bi am na ko ci bis bi waaye am ko ci édition spéciale bi nga xam ni mooy waajtaayu màggal gi nga xam ni ci lañu nekk di 18 Safar ñu sant ci yàlla bu baax a baax a baax euh, ba tey rek noonu rek lañ koy wéyalee waxtaan wi incha allah euh, ñu dugg nag ci li nga xam ni mooy deuxième phase bi waaye ñu am mbégte euh, nii ni ñu leen ko indilee ren jiit tànnal leen góor yàlla gi nga xam ni mooy Serigne Abdoulaye Yakhine muy ñu jagleel ko jotaay bi ni moom lañu indi fii tey waaye niñ ko baaxoo it saa su nekk danañ fexe ba indi leen benn jàmbaari suñ Tuubaa joo xam ni danañ ko indi feeñal ko ci jotaay yi nga xam ni moom la ñuy def xaj na nag tey jii ñu ngi am soxna su tedd soo xam ni ñu ngi wuyoo ci soxna Aysatu Saw moom it di jàmbaari suñ Tuubaa xam naa di ngeen seetaan bu ci kanamee élément bi nga xam ni moom lañ leen jëlee indil leen ko moom it muy jàmbaari sëñ Tuubaa ñu fas yéene ko woon murit yi fas yéene ko woon mbokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoo bokk ak moom dëkk fii nga xam ne mooy diwaanu Thiès ndax it moom jàmbaar la ko taxawaay la ci yoon wi. bu ko defee rek xam naa ni buntu bii ñuy duggaat incha allah rabbi ci buñ ci xuusee tuuti rek ci la ñuy ñëwaat ci jëwriñ ji nga xam ni mooy Serigne Mor Ba mi nga xam ni moom àndal jotaay bi tey bu ko defee oustaz da nuyu dikkal nag ci. bunt bi nga xam ni mooy diggante Sëñ ak yonent bi sëriñ bi ni mu meloon ci yonent bi ak ni nga xam ni jaay na ko lépp xam naa duñu ñu sax ci waxtaan wi waaye dañuy bàyyi rek nga xool buntu bi ubbil ci diggante sëriñ bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu mele woon ci moom ak cofet gi nga xam ne amoon na ko ci moom ba léppam di lépp yonent bi waaye dundam gi it mu xaaj ko lépp mu jébbal ko ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, ban buntu ngeen ci Euh, jërëjëf sëñ xaadim diggante sëriñ bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa yonent bi moo nekkoon léppam bi mu nekkee way juróom sëñ Mor Anta Sali sëñ la jaayante moo nekkoon sëriñam boo xoolee bind yam daan bind ci jamono yi sëñ moor sax da ko ci daan feeñal xaala bnu seyqihi alladi laa yuhmadu fi nafsihi si wasmihi muhammadu kii di wax mooy doomi sëriñam bi sëñ moo Anta Sali wàcce ab liggéey nga xam ne wérdu xaadar la yoroon joxoon ko ko mu lijaasalu ko ci boroom xam-xam yi fi nekkoon waaye bu mu demee ab diir rek nga xam ni li ko sunu boroom may moom lépp loo xam ne am na ko rek day teg bëtam ci lu ko gën a sori mu daal di jaalanteeg Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Cheikh Matidiane Serif Euh, cheikh euh, cheikh ahmad cheikh cheikh abou hasan assazali daal ni ñett ñi ñooy samay sëriñ léegi masaayiqi sayduna jilaani wa sazali maahu tijaani mu dem ci diir bu gàtt mu ni ñooñu day kenn ku ci nekk yàlla may na ma la mu yoroon ba làq naa seeni ngërëm ñoom ñëpp tamamtali bi maa bihi tijaani faaxa bi xidmati nabi adnaani waaw daan euh, si Abdou Khadir ji ji si Ahmad Tidiane Serif suñu borom tabaaraka wa taala la mu yoroon suñu borom mottali na ko jox ma li xuttama faaqa bihil jeylaani alayhi ridwaanu alladi ahlaani ilayya xuttama bihi abul hasan faaqa bi xidmati nabi jadil asan tamamtali bi ma bihi tijaani faaqa wa kuntaliya bil marjaani làq seen i ngërëm ñoom ñëpp radiyani sibtuhu tijaani radiyani sibtuhu jilaani radiyani sibtuhu abul hasan mu dem ba xasan bu gàtt nag mu daal di nag jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ab sëriñam nga xam ne loolu nag sëñ Tuubaa rek la ko yàlla defal ku dul sëñ Tuubaa rek da nga naan diwéy sëriñam diwéy sëriñam diwéy sëriñam ba ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom nag bi mu jaayanteeg ñii ba am li mu bëgg ci ñoom mu daal nag jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne nee na bi may njëkkante jaayanteeg moom sax booba tegaguma ko bët waaye damaa jaayanteeg moom rek ci sama xol baa baayaxtuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni waqdimoo lillahi muftarida daa nag suñu borom maa ngi lay ñaan nga wan ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma teg ko bët loolu nag xam naa lu jafe la lii ma lay ñaan waaye yow sunu borom mbir moo yomba rek dana yomb kon nag li ma bëgg rek mooy nga wan ma sayduna muhammad alayhi salaatu wa salaam di ko ñaan waxtu bu ne kulla zamanin la azalu atlabu liqaahu wa artaji wa argabu kabura azama talabta ya aziz wa ma huwa alayka bi aziz waaye keroog ci tuubaa gii bi nu ko sancee ci la gisee ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan laa manaaman nga xam ne loolu sax moo waral yoonu géej gi waaye mujj na nag benn naaru gànnaar bi muy tagg Sëñ Tuubaa nee na Sëñ Tuubaa karaamaam gi gën a rëy mooy fu mu toll rek mbir mu mu def rek yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko jox ndigal ni ko defal mbir sangam fu mu toll ma ngi jàkkaarloo moom ci bëtam fu mu toll ma ngi saafu anteeg moom waxtu bu nekk rek yonente baa ngi ci wetam min afdali karamati hada seyqi annahu la yafalu amran illa bi izni rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yaraaw inayan wa yatakallam maahu yaqasatan wa mushafahatan laa manaaman fu mu toll rek ma ngi jàkkaarloog Seydina Muhammad di gisee moom loolu Sëñ Tuubaa rek ko am mu jaayanteeg moom def ko muy ab sëriñam lépp mu jël ko jébbal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallama daana wax ni man mahat mahabbati al muxtaara sijidana xubbil maghaniya wal dammi wa ahli wa awlaadi fi daawn lahu abdan xadima lahu muskaan li sanada bëgg gi ma bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo far ci sama xol bëgg leneen du doom du alal du njaboot lépp jaay naa ko ngir sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ko juttulohol yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil anan yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox naa la bis ni ki tey sama ruux jox naa la samay doom jox naa la sama ñaari wayjur sax jox naa la ko addiya yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juttulohul ma bi ruux yi wal badan jox naa la sama ruux jox la sama yàpp yaram wa wala diir doom ju ma jur addiya la wa ya sama ñaari way jur sax jox naa la addiya yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon léppam da koo jébbal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabawtahu bi xidmati wa nafsi min saati ila xululi ramsi liggéey bu ma liggéey jox naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addiya nga xam ni amatul génnug bëgg lu dul sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam daana wax ne yaminu rabbi mazaarul mujtaba afdalu min mil il bilaadi zahaba boo ma tegaloon àddina bépp muy wurus ak xaalis nga ne ma yaa ko moom teg sama bët sayyiduna Muhammad moo ma ko dàqal yaminu rabbi mazaarul mujtaba afdalu min min mil il bilaadi zahaba waaw daal wax ne yesu uni mawti wa ayni lam tara walam aral madinatul munawwara li ma naqari mooy danaa faatu te du ma teg sama bët sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa quni aybi ani ziyaara wa artaji bi marxi bu saara daal man est-ce dama am ayib joo xam ne sax mooma tere ziyaara ji Seyduna Muhammad waaye nag ñëw ma ko ziyaara waaye ndax saa bu ma ko taggee rek bégal Seyduna Muhammad waaw yaa quni aybi ani ziyaara waaye wa ji bi marxi bu saara sama tagg yi ci laa yaakaare ak mbégam moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni bëgg ko bu fekkoon géej la dama cee labb dama cee lab xaraqtu fi baxri mahabbati rasul wa artaji min hurida awal xabul bu fekkee sàngara la suñuy naan mandi naa ci bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sakirtu min xabri mahabbati rasul fala fala azal fi sanab mutibi nga xam ne bëggam sayyiduna muhammad moom kenn mënu koo misaal ci dara nga xam ne wax nañ ci njaareem am na mag am na koo xam ne daf daan wër di jaay ay weñ waaye bu mosaan ñëw ba ci kër sëñ gi rek day wax ay wa rasul weñ yi ay rasul la woon waaye saa bu ne ay wa rasul rek sëñ Tuubaa woola mu ñëw mu jënd lépp jal ci barab saa bu jaaraatee wax loolu rek sëñ Tuubaa ko mu ñëw mu jënd lépp jal ci barab ba bis rek mu ñëw ni ko sëriñ bi weñ yamala daan indil indilaat naa la ko suñ tubaa ne ko bu dee ay weñ moom soxla wunu ci dara tur wa mu daan dégg ci weñ weñe rek moom moom moo taxoon mu daan jënd loolu ndax bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf euh, sëriñ bay macha allah loolu rek euh, day wone tegtal ne ni euh, sëriñ Tuubaa léppam yonent bi la xam nga dégg nga kooku ay weñ la daan jaay waaye rësul gi mu ci tuddoon moo taxoon sëriñ bi saa bu mu ko musaan dégg rek Euh, am yéene wecceeku lépp waaye wala mu wecceeku ci lu bari tubaarkàlla ba kooko saa bu ko yoree rek xelam ci sëriñ bi lay dem foofu la bëgg mën a yem tubaarkàlla euh, yalla nañu ko yàlla fayal Seexuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul sëriñ Mbaye jërëjëf xam naa bunt bi nga ubbi euh, foofu la ñuy dugalee sëñ Mor sëñ Mor Ba mi nga xam ne mooy jëwriñu sëñ Abdoulaye Yaqin moom mi nga xam ni moo nu dalal tey yor kàddu kër gi bu ko defee sëñ Mor xam naa ci ubbi bunt boobu rek ginnaaw xam naa di ko barkeelu sax ci màggal gi nga xam ne moo waral coow li waaye boo ci jógee rek diggante Serigne Touba ak yenent bi waaye diggante Serigne Abdoulaye Yaqin ak ki nga xam ne mooy Cheikhul Khadim xam naa ni loolu rek euh, ñu am luñ ci barkeeloo ci jotaay bi incha allah. waaw ah, jërëjëf sëñ <coughs> Khadim euh, macha allah sant yàlla bu baax si jotaay bi ak dañ dégg sunu mbokk taalibi bi euh, mu nekk ay kàddu yu kawe ci diggante ku tedd ki. ak muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa waaw di ñaan sama borom bis bi ñu jëm rek yàlla defal ñu si tawféex muy tawféex tawféexu jullit yëpp ak rawatina taalibe yi ndax bi sëriñ bi dem 1895 di war a embarqué jëmu ju tedd ji boobu mu ngi toll ci fukki at ak juróom si Zaïre waaye ginnaaw bi la xabaar ni moom Mouhamadou Abdoulahi al Yaqin ni yoonu géej gi yëpp moo ko ànd ak sëriñ bi mu nekk lu inédit loo xam ne kenn mosu ko dégg nee na mbooleem natt yi nga xam ne ñu ngi doon dikk natt buy ñëw nee na maanaam ko waajal nattu sàngam a ngi ñëw bu dee am xur wala am xunt nee na dugg ba nopp bi mu doog a egsi ba ni yoonu géej gi matee ñu daal di àndaat dikk te mbindeef yi yëguñu lool sëriñ bi wax na si asiru mahal abraar rafihu kitaabullahi wal mustafa nabi kon alxuraan ñoo nekkoon àndandoom ak muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi ah, kon loolu nag dafay duggal eh, mbiru borom barab bi eh, muhammadu abdullahi al ngir dimbali yoonu murit ngir dimbali yoonu mboolem mbindeef yëpp Euh, si la wax nii bu fekkee xamu leen li waral yoonu murit nee na day gën ngeen noppi lu tax ngeen noppi ndax nee na yoonu murit yoonu baatin la yoonu xaqiixa la ah nag alalu yàlla suñu borom subhaanahu wa la waaye mu teg si ni yoonu murit nekkoon na moom yoonam lu jiitu saa di sakk àdduna lu jiitu saa borom di sakk àdduna yoonu murit nekkoon na yoonam. doyatul mu ni mbooleem anbiya yi nga xam ni seen lim téeméeri junni la ak ñaar fukki junni ak ñeent borom barab bi nee na ñooñu ñëpp mu yonent yi yoonu murit mooy seen yoon waaye mu jeexale ni yoonu murit mooy yoonu mahdi yu te jëmm jooju moo di muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam tey soo boo xoolee tey suñu xaadim bu dee sëriñ bi wala muy Cheikh Ibrahima si zahir gis nañu loolu ñu tuddee ay mbokk gis nañu askanam gis nañu loolu ñu tuddee ay wayjur waaye soo ñëwee si ku tëdd kii ah doo gis ay wayjuram doo gis mbokkam doo gis kenn ku mu bokkal waxoon na ni njabootam ñi nga xam ne ñoo leen meññi muy leen du yàgg yàgg yàgg ba kenn ñëw fii wax ni man ak moom ñoo bokk daani abdu faqat ba keroog àdduna ji tukki doo leen gis ndijaay doo leen gis maam doo leen gis bàjjen te defe naa ni ba mu ko waxee ba tey jii gis ñu lenn loo xam ni wedd na lool kon eh, ak dikkam si yoonu murit diggante ma ak eh, rawatina diggante ma ak sëriñ bi nekk na ay mbóot yu màgg a màgg a màgg Mouhamadou Abdoulahi al Yaqin dafa wax ni wa inni aati fi xarbi dunia kon ñëw na saw jant waaye nag bi axiri zamaan yi si mujjug jamono li afnaytu dunia maanaam si àdduna si cat li si la ko sa borom indi mu tudd mu Muhammadul Mahdi wax na ni ya ayyuha naas yéen nit ñi fax la moo indi Muhammadul Mahdi ndax nee na déggoon naa Muhammadu Abdullahi nee na sama yoon wu njëkk déggoon naa Muhammadu Abdullahi ma dellusiwaat dégg Muhammadu Rasulullahi dellusiwaat dégg mu Muhammadul Mahdi Muhammadu Abdullahi muhammadu rasulullahi muhammadul mahdi kon soo xoolee dénominateur commun mooy muhammadu muhammadu muhammadu ma ñëw nag saw jant ngir seere si sëriñ bi ak Cheikh Ibra moo tax muhammadu abdullahi al yaqin ni olof dafa wax wax bu yàqu olof dañuy ñaar a xam ñu jàngee si sëriñ bi ak Cheikh Ibra mu ne ñett a xam waaw bi ñu ko laajee ñett ñoom kan kan la mu ni xam naa sëñ Bamba xam na Cheikh Ibra xam na te daan na wax tamit nee neen li àdduna di yaatu yaatu la waxoon Cheikh Ibra ne ko yéen ñaar rek laay waxal yow sëriñ bi rek laay yéen yéen ñaar rek laay waxal Cheikh Ibra tamit daan ne ko gërëm gu ñu yàlla gërëm man ak sëñ Bamba moom lañ sama borom sa jëmm ji mu bàyyi ko ardul ijaaz te buñ ne ijaaz tey mooy makkatal mukarama ak madinatul munawarat borom barab bi foofu la bàyyi ko atu 1880 si la gën jamono ña meññ fa meññi Abdullahi la ak Aminatu fii mi ngi fi tëdd 1943 ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab si bisu gaawu ci takk takkusaanu suuf boo xoolee 1880 ba 1943 lu mu lay jox 63 juróom benn fukki at ak ñett tudd Muhammadu waajuramu góor Abdullahi waajuramu jigéen Aminatu kon ay mandarga saayir la yoo xam ni kenn ku nekk nga si mën a sukkandiku waaye lam waxal boppam yaa ayyuhan naas la wax fax la moo indi Muhammadu rasulullahi bataaxal bu màgg boobu nga xam ni jox na ko mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom la seqaloon lislaam rawatina ñi mu seqaloon yoonu murit lam sax mooy allahu azza wa jalla taala al mu'id ndax saa su nekk loolu lay ubbee fa min muhammadul mahdiyu nabil huda wa inni qultu li jamihi ahli dunya inna ali sheyun azimun fi dunya wal axirati wa man kafaro fal yaxlam anna man kafara alxaqa min allahi taala huwa daaxilun min alkazibin wa man axasa alkaziba xata maata daxala naara wa huwa zalimun li nafsihi inna nii muhammadu rasulullahi qultu lakum wa man kafara nii wa yaxusa xayrallaahi taala fa huwa min alxaasirina fi dunia wal axirati ayol kufaaru faxlama anna kufrakum wa ibaakum lam yujib tarkulahu ma ma ma xadrallahu taala fi abdihi wa man kafara nii fal yatlub rasulan xayra rasulillahi waaye nag li anna allaha taala jaxala shaxsi muhammadul mahdi rasulillahi wallahu nag laa yoxlu fi lmihaad wa xalaqa laahu xalaayiqa baxda xaadiri wa zalika zamaan wujdi shaxsi muhammadu rasulillahi wa huwa xaatimu nabiyina fi dunia wa imaamul mursalina fi laxirati wa haadihi lam yakun bi kaydin wala duwain wa laysa lil urufa walakin xadirul xaadiru azizul jabaaru kama shaa wa huwa laahu rabbul xalaayiqi wa arsala moo si gën a am solo wa arsala muhammadu abdullahi nabilu daal mahdi fi xariyati Cees jànqin kon dañ ko yónni wa arsala la wax kon bi mu jógee penku ñëw saw jant dañ ko yónni sëriñ bi tamit naka noonu ne dañ koy yónni dañuy allahu arsala fi axiri zamani man yuqaalu cheikhu ahmadou bamba li shaxsil mahdi li ma lay wax nii mi ngi nekk ci téere bi mu fi bàyyi di fulkul mashxoon bi mu fi bàyyi wa zalika al kitaabu huwa al kaamilu al mutakammilu min rabbil alamin ila muhammadu rasulillahi al mahdi lil alamin kon si la wax wax ji wax ju màgg ji daal ni waa ma Bamba xuba babul mahdiyu daal di tënk nag liggéey sëriñ bi yëpp si euh, mën naa wax si ndax euh, fulkul mason ay ay ayaat la du ay abyaat allahu arsala euh, lam wax ni allahu subhanahu wa taala lam yarit shay'an fi bamba siwaahu yu arifu dunia amral mahdi kon boo xoolee mooy liggéeyu sëriñ bi kon bi sëñ bi dem ci géej gi boobu mi ngi toll si 15 fukki at ak juróom ndax 1880 la gën a jamono 1880 ba 1895 fukki at ak juróom la waaye nee na yoonu géej gi yëpp ñoo ko ànd donc loolu dafa nekk déclaration boo xam ne lu tubaab naan inédite loo xam ne àdduna mosu ñoo xalaat lu mel noonu te bi wax na ñi mu àndaloon muy Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak alxuraan ak ahlu nee na nee na natt buy dikk maanaam ko waajal borom barab bi mu wax loolu te te wamaa yantihu anil hawa nee na bu ma bëgg mukk ba waxal ma lu ma waxul waaye nag bu ma noonu ba waxal ma lu ma waxul nee nattu buy ñëw manaan sëriñ bi waajal nattu sàngam a ngi ñëw bu sëriñ bi waaju dugg si xur wala xunt nee naa ko nee naa man maanaan ko maay dugg ba noppi mu doog a egg bañu àndaat dikk ci saw jant kon nag nekk na lu rëy nekk na lu màgg ah, loo xam ne nag day dugg si la mu wax ne yoonu murit yoonu baatin la yoonu xàqiha la yoonu murit yoon la waxam bi ko saabaram di sàkk sàkkagul àdduna ne da ko sàkk da ko sàkkoon bu noppi nëbbu ko kon dafa fekkee nee na saabaram dafa sàkkoon yoonu murid ba noppi nëbbu ko wutal ko àpp comme moom tamit jëmmam ji saabaram da koo sàkk ba noppi nëbbu ko la wax ne suma kataman soxsi ila ajalin musaman waaw bañ demee neen niñ dem ba am foo xam bu ñu ba toll fa su boobaa saabaram dina muri jëmmam ci ndax li sëriñ bi wax si jaawartu ilaya xaadalaahu maalam yakkuni wala yakkunu abadan li mumkini borom barab bi dafa laaj ni kenn ngeen defa ni moom lay wax si abyaat yi ñëpp ni tekk di ko déglu mu ni sama jëmm ji tax muy wax daani kenn musa atte jamono rasulullah feeñ sa biir sëriñ bi musa am lool daani sama jëmm ji moom la sama borom wamatal abdul xadim kon <laughs> loolu eh, nekk na tamit waa lu nekk na njëriñ lu mag xam sëñ moom <laughs> incha allah waaw foofa sax laa bëgg ñu desaat fa tuuti ndax kéemaan yi eh, Serigne Abdoulaye Yaqin moom foo ko natt rek weesu na ko waaye ci taxawaay am solo yooyu nga xam ne amoon na ko digganteem ak eh, Serigne Touba dégg nga ci tukki boo am solo boobu nga xam ni lépp nee na moo ko ànd ak moom mbooleem nattu yi luy ñëw moo naan ko nattu sàngam mu ngi ñëw loolu it di gëneen kéemaan sëñ Bay ndax yaa ngi koy leeral sànq rek ci waxtaan wi waaye diggante Cheikh diggante maam Cheikh Rahma Fall ak sëñ Abdoulaye Yaqin loolu laa bëggoon nga indil ñu ci benn buntu rek ñu barkeeloo ko Euh, soo maa ngi lay xamal ni turu al yaqin si làmmiñu sëriñ bi la bàyyi ko làmmiñu sëriñ Tuubaa 1924 am na ñett ñoo xam ne daje na ñoom ñaar ginnaaw muy dajeeg sëriñ bi muy Cheikh naa Cheikh Sadou bu xayratu waaye turu Abdoulahi la ko woowee Cheikh naa Cheikh Sadou bi mu dajeeg Cheikh Ibra muy bunt bi ngay wax si Ndande Fall 1893 la boobu mi ngi am fukki at ak boobu mi ngi bàyyi ko kër Ndiaga Mbaye jaar ñaxib jaar kër Baba Alima 1893 si la jëmmanteeg Cheikh Ibra keroog bi muy ñëw di wut si Ndande Fall Cheikh Ibra yor na nekk na si àll joo xam ni ma ngay bàgg di dem naan ah bisimilah jàmm tey Ndande Fall nar naa am gan goo xam ni bu doon rabu àll ma sañee wax ne kilifa ñay la gën gi mu yoroon mu ngi ko taal si jant bi di xëcc di tiir di wax lool bi nga xamee ni ku tedd ki si na bañ jëmmante nee na dafa mbooloo mi ne dañoo mel ni ñii am na feneen fu ñu xamante woon. Cheikh naa ko Abdullahi larub yàlla bi Abdullahi larub yàlla bi loolu tax a jóg mu ne ko jokk si si ndigal yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon dikk gim dikk Cheikh Ibra du coobare boppam waaye si ndigalu yàlla la ndax moom lépp lu muy def si ndigalu boromam la maam Cheikh ne si na ko waaye keroog la rëdd ñetti rëdd si kanam Cheikh Ibra rëdd bu njëkk bi mu ne ko àjjana taxumaa jóg. te booba nee naa la mi ngi am fukki ata ak ñett mun ko mboolee mi war a topp yaakaar ma àdduna ak alaxira maa ngi janoog nii seeni kër yi àjjana ak seeni mbooy kon àjjana maa jóg ñaareelu rëdd bi munu ko ragal sawara taxumaa jóg ñetteelu rëdd bi munu ko bëggu mbooloo taxumaa jóg ak jaaxle dugg si na maam Cheikh bi bisimilah jaam ah kon lu la tax a jóg mun ko xanaa bëgg ëllëg ak bar akbar ñu demee ba góor ñëpp tële ma jóg jël yan ñëpp seen dënn rëcc am daani bisimilah jàmm daani jugal gi am na ngonkum gan du ko def loolu Cheikh bi la wax jugal gi am na ngonkum gan daani ah bisimilah jàmm ñetteel bi ñëw na ñetteel bi la wax Cheikh bi daani ñetteel bi ñëw na léegi bala nga ne ñett di nga benn ñaar ñaar ñi mooy moom ak sëriñ bi maam Cheikh ko àdduna de li muy yaatu yaatu góor ñu bëriwuñu xanaa man ak sëñ Bamba ñaata an bi yaay la sama wàcc téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent awliyaa yi ñaata lañu aqtaab yi ñaata lañu waaye gis nga xoolal waxi Cheikh Ibrahima mu ne ko àdduna li muy yaatu yaatu ñaari góor a fi am man ak sëñ Bamba borom barab bi tontu ko daal ko yéen ñaarama tax di wax mu indiwaat xëqante comme bi Cheikh Ibrahima di jokk si sëriñ bi <laughs> xëqante mu gëm indi woon noonu ko loolu moo ko dalal digganteem ak maam Cheikh mu ne ko yow ak sëñ de ñaar ngeen ñaari jëmm ngeen man benn jëmm laa waaye yor naa ñaari tànk sama ñaari tànk yi nag lay teg seen ñaari ngir yi maanaam ngiri sëriñ bi ak ngiri cheikh bi bokkul su boobaa mu ni ko dinaa àgg si yàlla foo xam ne kenn du ma fa fekk maam cheikh ni ko doom nañu wéet boobu ba tey nangagul njëbbal gi de bi mu ne ko doom nañu weet borom barab bi bëgg a jóg jóg bi yeex jóg bi yeex lool maam cheikh ni gis naa ni daal tànk li ma nga jàpp ba juróom-ñaareelu suuf daal tànk li naa ngeen daal bopp baa nga ba juróom-ñaareelu asamaan daan sama gan gee doy waar keroog la Cheikh jàpp si mag yi mu daal jàppandi si moom waaye bi mu jógee diisaay bi mi ngi bàjjewu waaye nee lu gaaw gaaw gaaw boromam day na ko ni ko soo jëmmanteeg Cheikh Ibra na nga ko nëbb sa bopp te na nga ko naxtaan ba mu nangul la ndax kii moom ci la war a làq si la Cheikh Ibra benn cadre daa ji dugg borom barab bi dugg Cheikh Ibra tëj foofu nag xaqiqa kese moo fay dox sharia amul fa yoon maam Cheikh di ko laaj lu laaj bi sori sori sori si yàlla tont bi taxaw na mu di ko laaj muy tont mu di ko laaj muy tont du gàkk duñu xawma du dénk-dénk ba mu dese ko benn laaj moom Cheikh Ibra mu daal di fas ci xolom ni sama mujjanteel laaj bi su ma tontoo du ma ko làqati maanaam njëbbal gi du amat te sama borom bëgg na mu làq ko bi Cheikh laaj laajee mujjanteelu laajam borom barab bi nee na ma xam tontu waa waaye nee na damaa dem ba di ko bëgg wax ñu daal di fëgg sama mbagg ndijoor nee na bu ñu fëggee sama mbagg ndijoor ma daal di téen di xool nee na muy Seydina Jibrilu alayhi salaatu wa salaam nee na Seydina Jibril moo moo ko wax si nopp ndijooram ne ko sa borom nee na soo ko waxee du la kii moo la war a ne ko lot naa si xam ko ne ah Fall lot naa si xam ko Cheikh Ibrahima ne ko xam nga ko wax ma ko wax ma ko tàng jëpp muy seral di seral di seral ba Cheikh daal di songaat song gu metti waaye saa bu ñëwee la fay fekk mooy Fall lot naa si xam ko ndax boromam dañu ko naxtaanal ba li nga bëgg waaye nag na nga nëbbu sa bopp. ci la ginnaaw àggu fa kon dees na ko mën a làq waaye ginnaaw bi la wax nii waxuma la chiffre la ma mujjee laaj waaye la ko jël xam naa ko. alama nii laahu duniyaa wa xablaha suma alama nii rabbi laaxiratu wa baxdaha ila ajalin tawilin noonu la ko waxee alamanilaahu maa laa yuxalimu naasu abadan mu waxaat tamit walaa yaxlaxu maa laa taxlamuun wa inni muhammadu rasulullahi al mahdi yi alamanilaahu maa laa yuxalimu naasi abadan loolu la borom barab bi wax kon dafa nekk beneen njàngat si yoonu murit beneen njàngat li ci gën a doy waar ama tam sa bi Cheikh Ibra di dem mu dese ko ñaari weer ci kaw suuf mu woolu ko fii mu bàyyi ko Thiès ñëw Njaaréem mun ko sama borom damaa xamaloon ni bu sëñ Bamba amee ñetti at barsàq dinaa ko fekk si te ñetti at yi ñaari weer si des Abdou damaa bëgg nga jege si ma jege si ma jot na mu daal di bàyyi ko Thiès dem Makka looy lay si Njaaréem foofu la nekk ak Cheikh Ibra bis ñëw mu daal koy woolu ba mu ñëw mun ko wër naa la pays juróom-ñaar te xamaguma yaay kan damaa bëgg nga wax ma sa bopp te ànd nañu fanweeri at ak juróom-ñaar ànd 1893 ba 1930 mu nekk 37 ans ju fanweeri at ak juróom-ñaar mun ko faal ndax may nga ma ma wax la sans bopp déggal mun ko ndax may nga ma ma wax la sans bopp Cheikh bi ne ko may naa la nga wax ma sa bopp mun ko ah faal fi ma sañ yam ak yow ba tey gis nga gis nga wax ji fi ma sañ yam ak yow may Abdullahi mu njëkk di Abdullahi mu mujj daane ko mbooleem li samborom bind lépp maa ngi ko téye sama tenk bi Cheikh Ibra daane ko weddiwu ko sëñ Bamba sama sang ba weddiwu ko mun ko àdduna li muy yaatu yaatu yéen ñaar laay waxal waaye mu daal di wëlbati ko waat wax Cheikh Ibra ni ko sunu jëmm ji moo di Muhammadu Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam wa barak Cheikh Ibra daal koy tontuwaat ni ko weddiwuñ ko sëñ Bamba sunu sang ba tamit weddiwu ko kon Cheikh Ibra bu sàccalee boppam day sàccal bi la si des na si waaye maam Cheikh daan ni ko gisoon nañu Rasulullah sunu wanag déggal maam Cheikh gisoon naa Rasulullah sans wanag waaye jëmm jama gisoon ak sa jëmm ji mu ne ma leen a xàmme Abdoulahi kooku lam ak lii nga sol mu ne ko lu yàlla bind sama jëmm jee tax. macha allah maam Cheikh tontuwaat ko ni ko atum yabal ma bi ma saa di yoor ma war a liggéeyal sëriñ bi damaa woo ba mu ñëw mu déy ma secret moom yàlla suñu borom subhanahu wa taala mm-hmm. ni ma boo liggéeyee Xaadim Rasul ba liggéey bi jeex. Muhammad Rasulullah dina la gane si jaxran macha allah <laughs> jërëjëf tubaarkàll ay kéemaan dëgg ngi noonu waaw ay kéemaan dëgg ngi noonu waaw yàlla nañ ko yàlla fayal waaw cërub Cees la nag sëñ Abdoulaye Yaqin cërub Cees la ndax fii barab bi nekk rek doy na képp kéemtaan kéemtaan doy na sëkk kéemtaan fii barab bi nekk waaw ndax barab bu mel nii moom gisee fu ko ci àdduna waaw gisee ko fii amul fenn fooy dem barab barabu góor yàlla nekk ci digg dëkk bi waaye ay ay ay tali seq ko comme ni mu seqeek barabu sëñ Abdoulaye Yaqin yi def naa loolu cër la waaye luy gën a feeñal góor yàlla gi mu doon la yàlla nañ ko yàlla fayal moom la ñu jagleeloon tey jotaay bi nga xam ni moom la leen RTT TV indi di jotaay boo xam ne dañ koy waajee màggal gi ni ñu leen ko waxee rek di ko ànd ak kër Sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu tànn ci nag bu njëkk góor yàlla gii di Serigne Abdoulaye Yaqin waaye macha allah defe naa li ñu dégg tey sax mosuñu ko dégg waaw li ñu dégg tey ci ay kéemaan mosuñu ko dégg ndax Serigne Mor ba leeral na ci lu bari diggante suñ Touba ak Serigne Abdoulaye Yaqin waaye diggante maam Cheikh Rahma Fall ak Serigne Abdoulaye Yaqin waaye cër bi nga xam ne it moom la moom la Cees am ci jëmm jooju it gën naa leer tey bu ko defee rek euh, Serigne Mbaye xam naa ni ñu ngi ci cëppaandawul waxtaan wi. ndax waxtu wi sori na lool euh, bu ko defee rek dañ lay bàyyi lenn ci dénkaane màggal gi bu ko defee rek incha allah euh, Serigne Mor xam naa ne di nga di nga daanalaat kàddu ndax bëgg naa kàddu gu mujj gi euh, ñu jox la ko bu ko defee Serigne Mbaye lañ bëgg a dugal mu defaat ay kàddu yu soññee ci màggal gi ñu jëm rek ci 30 secondes wala une minute rek bu ko defee ñu delluwaat nag ci li nga xam ni mooy waxtaan wi incha allah ak Serigne Abdoulaye Yakhine. waa ah, kay euh, jërëjëf hmm. euh, sëñ Xaadim waaye ñu sant sëñ Moor bu baax ci waxtaan wam solo wi nga xam ne doon na ko waxtaanee jëmm ju tedd ji tëdd ji suñu ginnaaw hmm. Cheikh Abdoulahi Yaqin hmm. waxtaan wi kawe na lool am na solo wallaay ndeysaan wax dëgg yàlla dañuy wax ni man qara al waliyan faka annama ahyaahu képp ku waxtaanee ku baax delloo siwaat ko ba nit ñi xam ko danga mel ni ku ko delloo siwaat jamono ndeysaan kon am na solo lool bu ko defee màggal gi moom liñ ci soññee mooy sëñ Tuubaa bisub sant yàlla la woote hmm. te sant yàlla di jaamu yàlla gu màgg hmm. iblis dañu woon suñu borom danaa fexe ba sa jaam ñu la sant hmm. suñu borom ne woon na euh, wa xalilun min ibadiya shakur lu néew ci jaam ñi moo ñooy sant sëñ Tuubaa nag fexe ba wutal nu bis boo xam ne bisub sant yàlla la suñ Muntaxaa wax na ci lu am solo mooy nanu ko ubbee kaamilu alxuraan képp ku ko man na nga jàng ñetti kaamilu alxuraan def addi sëriñ bi. Mhm. muy ndigalu sëriñ Muntaxa muy ndigalu sëriñ Mamadu soo ko mënul boo mënee benn baax na boo ko mënul loo man rek. Mhm. faqru maa tayassara min alxuraan yi lu jàpp ne ci alxuraan rek jàngal. Mhm. soo ko mënul sax boo mënee jël sa addiya neexal ko mën alxuraan mu jàngale la ko nga sant la ko yàlla sëñ Tuubaa. loolu moo mat a xam xam ne bisub sant yàlla la sëñ Tuubaa woote. ku liggéeyal ji woon boroomam ba am ngërëmam nabbatuku maana laa kaddin bada lii xablaan araari dan mu abada ku liggéeyal boroomam ba am ngërëmam di ko sant te jàpp ne cant ga muy sant suñu boroom war naa gën a bari mu woote ci ndimbal ngir nu ñëw sant la ko suñu boroom kon képp ku dem pas-pas boobu ngay am waaye boo demee ba Tuubaa def lu wuuteeg sant suñu boroom kon màggal si woo waaye da tooñ sëñ Tuubaa waaw màggal si ak ku woote ni nañ ma sant la yàlla tabaaraka wa taala mhm. nga ñëw ba foofu def lu wuuteeg ak bëggam mhm. da nga koo tooñ moom. waaw foofu jar na ñu taxaw fa tur mhm. bàyyi loo xel mbokk yi euh, maanaam bu ñu gisee euh, nii nuy waajee fi mu ne nii daanaka da ngay gis suñu xaayum sumaare di waaj mbasin liis bu rafet wala jesneeram bu rafet bu dee wàllu soxna yi yaa ngi gis ñu ngay leeral seen wu yaram ñu ngay xool yeneen wàccaay woo xam ne boo gëstoo rek àdduna képp la dafay mel ni loolu bokkul ak ndigal li nga xam ni moom la sëriñ bi wax ni nan ko ko ñëwee sant la ko boromam xam nga suñ borom bi mu bi mu ñu farataale ci ñun aj màkka mhm. dañu bu ñu ñëw nañu wut ab yóbbal nañ nañu wàcc mhm. waaye yóbbal bi gën ci yóbbal yi mooy na ngeen indi ak ragal yàlla ak ragal yàlla ah na ngeen indi ak ragal yàlla mhm. kon bu ñuy waaj fas yéene buñ bàyyee xel yi dañuy santale yàlla suñ tubaa rek su boobaa waaj taayu caaxaan yëpp danañ ko tegee ne wàcc xol mu xol bu sell xol bu sell te xam ne li ñuy sàddale sëñ Tuubaa yàlla mooy dafa ñoo liggéey li ju suñu ëllëg ba sunu ëllëg jag ndax ba muy ñëw dafa wax ni ijaxal rujuwan ilaa xaw mi saadatana ah. wala tag fi naa yooma jeem xel xalqi niiraana kon bisub sant yàlla la liñ koy waajee mooy léeg-léeg sax nga gis koo xam ne ci so mbokki soxna yi ni ñu ko waxee ni mu koy waajale mooy day soppi aw deram mm-hmm. soppi deram dama ngi def lu xaraam mm-hmm. ni day waaj dem màggali santal Sëñ yàlla xotti ay xotti yoo xam ne xaj da sax lislaam taamu ko mm-hmm. nga ne da ngay màggali mm-hmm. loolu su boobaa boo demee doo ci am yàlla mm-hmm. doo ci am Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Musaa Ka daf ni bisub màggaluk Tuubaa nit ak jinne ak malaayika ñëpp fay teew ngir darajey Seex Bamba bis bi lay siiw nit ak jinne ak malaayika ñëpp fay teew ci darajey Seex Bamba bis bi lay siiw kon nit ak jinne ak malaayika dañuy ñëw sax di màggal si bis boobu dañuy màggal si bis boobu waaw loolu sëñ Moussa Ka moo ko wax mat a bàyyi xel waaw moo ko wax nit ak jinne ak malaayika ñëpp fay teew ci darajey Cheikh Bamba hmm. bis bi lee siiw nga xam ne ñoom ñëpp dañuy ñëw ngir xam nga sañ sëñ sëñ sëñ Tuubaa ne woon na aljana amul bis hmm. aljana amul bis hmm. ak guddeeg bëccëg ak yooyu tey la jeudi ak vendredi loolu aljana amu ko waaye nee na buñ ca demee saa bu màggal tubaa ñëwee bisu fukki fan ak juróom ñetti ci weeru safar mhm. suñ borom dana soppi aljana lu neexoon benn dana ko def ñaar mhm. ba ñu tey lan moo xew ñu ne bisu fukki fan ak juróom ñett bañ daan màggal ci àddina moo dellu siwaat kon bis boobu ëpp naa caaxaane ëpp naa caaxaane mhm. nga xam ne ñëpp a ñëw ngir fekkee si bis boobu kon niñ koy waajee daal mooy wàcc xol wàcc mbooleem li nga xam ne dana dëppoog bëgg-bëggi sëñ tubaa sëñ Tuubaa nag lu ko waa ji defal alxuraan ca war a jiitu mm-hmm. ne woon na ba Basiru lépp lu ma waa ji defal bu ca boolee alxuraan ma nangu ko alxuraan nag du du caagi ni boo mënta jàng kaamil bi rek mënoo alxuraan mm-hmm. boo mënee lixlaas sax ngay def ñetti lixlaas foo toll yaa ngi wàcce kaamil yonent bi sallallahu alayhi wa ne woon na mm-hmm. benn lixlaas ñetti lixlaas kaamil la nga di ko def ngir dab bëggug sëñ Tuubaa foo toll yor sa kurus boo mënut a jàng sax ngay def istixfaar mhm. di def lu baax ci sa ci salaam meñ te xam ne bisub sant yàlla la mhm. du bisub caaxaan mhm. nga xam ne sëñ Abdoulaye nag ne woon a màggal ñetti fan la ñetti fan waaw danu koy séentu mhm. bu ñëwee ñu daloo ko buy dem ñu gunge ko bu bu ñëwee suba la màggal bisu màggal ak màggal ba ca suba ga mhm. kon ñetti fan yëpp di ci fexe di jàng alquran mhm. di def salaatu ala nabi di def istixfaar di jàng xasaay di sëñ Tuubaa yi loolu lu ci am solo la xam naa fàttali waale yi ni ko sëriñ bi daan defee ndax euh, ci noonu nga ko waxee rek ci alquran la ko daan tàmbalee waaye digle woon na ñeent ñeenti keef yi nga xam ni euh, dafay mel ni waxoon nañu nañ ko koy defal mooy li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem loolu it lu mat a bàyyi xel la sëñ Touba 1921 la njëkk a màggal ci njaareem si Musaa Ka nee na njaareem la njëkk a màggalee catal sasin la àggalee fii la Bamba jommalee ca Bamba Ahmadul Mbakki waaye bi mu woote màggal gi moom ci jëmmi boppam dafa woo sëriñ euh, Amsatu Jaxate mooy nijaay Cheikh Abdoulaat ak sëñ Saalihu ak sëñ Suhaybu daane ko Amsatu mu ne ko Mbàkke mu ne ko waayu yàlla ju fi a jaar ba jëfal boroomam lu tax boroomam rafaatale na ko rafaatale ko bis mm. ba mu ko jëfee ba noppi boroomam rafaatale na ko bis mm. daane ko ka ca gën a siiw nag mooy Seydunaa Ibrahim mm. daane ko Xamsatu mu ne ko Mbàkke mu ne ko liggéeyal naa sama boroom ba mu rafaatalee ma bis bisub tey jii mooy sama bis boobu bisub fukki fan la ak juróom-ñett suñu sotu jaxate daal di génn ci jibaam addee jox ko Sëñ Tuubaa ni ko Mbàkke lii maa ko def ci sa bis bi Sëñ Tuubaa ni ko Xamsatu mu ne ko Mbàkke mu ne ko santal yàlla ndax lii nga ma jox moom laa njëkk am ci xalaalan tayiban ju ma def ci bis bi mooy alal ju lew ma def ci bis bi daal ci yónnee ab gàtt defar ko daldi koy def ñetti saam daal ne bii nañ ma ko joxal soxna uh, Anta Bale Mbàkke bii nañ ma ko joxal soxna Aminata bu Bousso mooy woy juru Sëñ Abdul Xaadir bi ci des nag nañ ko sarax sarax naa leen ko yéen donga yi nga xam ne loolu mooy addiye jëm njëkk def ci bis bi beneen bi itam génn na addiya jox ko sëriñ Mawlaay bu suñu jënd ci kafe ak suukar ngir jàngale rek wane lan la ñu war a màggalee moom. Hmm. gannaaw bañ defee bañ defee xéwal yi ba noppi. waaye nag mu mu mu gannaaw bañ defee alxuraan yi ba noppi mu mu bernde ci loxol boppam moom suñ Tuubaa. Hmm. nga xam ne bi mu rey gàtt ba noppi moo ko def lu ñetti saam daal di jox benn bi donga yi jox benn bi soxna Aminata Bale jox benn bi soxna Aminata Kandi Buso. Hmm. daal ne bis bi nag bu ñëwatee. képp koo xam ne sama bëgg sa bëgg la na ma ci sant la yàlla. li dalee ci ginaar ba ci gileem lépp lu ci waay def ngir jëmm yàlla te sama jëmm ji tax boo lëgee la ma jëlee sama tukki bi dara du la ci ump te tukki bi nag sëñ Basiiru sëñ Tuubaa ne woon na ko ni la ma jëlee ci tukki ba sànkuwul suñu borom ba fa mu koy feeñalee mooy bis ba nga xam ne lu nëbb woon dana feeñ kon lii ñu gis ci àddina yëpp tukki bi sëñ Tuubaa bi dara feeñagu ci kon waaw sëñ Musaa Ka ne woon na mosali leen lii aw ban la ban mooy aw xet mosali leen lii aw ban la mbanaga laala guñ ko junniy ñay la Ah, maanaam dañoo togg rek ba mu ba xeet gi neex rek suñ Musaa Ka nee na xéewal yi ñuy xéewaloo nii loolu rek la waaw ah, mosali leen lii aw mban la mbanaga nag laalaguñ ko junniy ñay la waaw ah, kon tukkib sëñ Tuubaa bi gisaguñ ci dara kon daal loolu mooy màggal gi sëñ xaar mi ngi noonu macha allah ñu sant ci yàlla bu baax a baax a baax ñaanal suñu borom mayaat ñi ñu fekke ko ak jàmm ba ko incha allah xam naa ne rek la ñuy tëjee waxtaan wi waaye ñu siyaare mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp li tàmbalee ci barab bii ñu nekk jëwriñ yi nga xam ne ñoo fi féetee euh, sëriñ Modou Ngom ñu nuyu ko bu baax moom sëriñ Babacar Ngom euh, ñu ziare ko bu baax jox ko wàccuwaayam moom mu ngi fii ci euh, gox bii nga xam ne fi nekk waaye nuyu bu baax sama nijaay mam bu Thiaw moom it mu ngi fii ci gox bi ñu nuyu ko bu baax ziar ko bu baax bàyyi ma góor sàmm ñoom it ñu ngi fii ci gox bi di ay jàmm waaye ñu ziare bu baax sëriñ Xadim Sarr borom ñu nuyu ko bu baax ziar ko jox wàccuwaayam moom it muy kenn ci gox bi nga xam ni fii lañu nekk waaye macha allah ci taxawaay yi ndax fii ñuy euh, defee liggéey bi bari na lu ci jàppe lool sax ba lépp jàppandi moom it ñu ngi koy nuyu te di ko ndokkeel bu baax te di ko sant bu baax borom diwaan bi di ñaan mbooleem yëngatu yëpp yàlla ko suñu borom barkeel di gërëm bu baax sunu doom jooju di sëñ Moustapha saar moom it di doom yi sëriñ Xaadim Sarr ñu ndokkale ko bu baax ziar ko bu baax jox ko wàccuwaayam bu ko defee waxtaan waa ngi noppi yàlla nañ ci dajeeg tawféexi Serigne Touba ñu gërëm bu baax nag sunu invité bii di Serigne mbay Thiam moom it nekk fii ci Thiès ci Darou Salaam waaye macha allah di boroom xam-xam bu rafet ndaw la waaye xam-xam bi tubaarkal la foo ko natt rek weesu na ko ñu ngi ñaan sunu borom muccal ko ci cat ah, te barkeel liggéey bi yëpp yëngu yeeg dal yëpp barkeb sëñ Touba ah, gërëm bu baax waa Darou Salaam gi yëpp nag nga nga jógee ñoom Serigne Aline moom it tuwarkal la ci benn fanu safar wi ak fédération bi liggéey bi am na solo ñu jaajëfal leen bu baax a baax a baax jaajëfal mbooleem euh, téléspectateurs yi nga xam ni ñoo doon topp waa koy euh, Serigne Khalifa Gueye euh, Serigne mu ngi oustaz ngi lay nuyu moom it tuwarkal la yéen a ànd ñëw ci jotaay bi ñu ngi lay nuyu bu baax te di ko ziara bu baax di ko jox wàccuwaayam waaw bu ko defee ñu gërëm bu baax téléspectateurs yi doon yi doon topp jotaay bi yëpp waaye gërëm aussi tamit techniciens yi nga xam ni macha allah bu ngeen gisee image yi ak son bi lépp di baax yàlla ak seen i jëmm la ñoo gërëm leen bu baax gërëm Doudou Sy Pro moom mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ànd ko ak ki nga xam ne mooy Babacar saw waaye ak Mouhamed ak ki nga xam ne mooy ass ñu jaajëfal leen bu baax jaajëfal mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi jàkkaarloo noonu ñun ci seen télévision RTT TV ñu joxaat leen rendez-vous rek xam naa ne ci semaine bi ñu jëm ci beneen quartier boo xam ne wala pénc moo xam ne ci jë euh, jëwriñu Serigne Touba yi la. bu ko defee rek balay yàgg dinañ leen wax fan fan la ñu jëm ngir defee fa jotaay bi incha allah yàlla nañ yàlla may ñu fekke ko ak jàmm ñu ngi gërëm mbooleem ñi ñu doon àndal ñëpp di leen jox rendez-vous beneen jotaay incha allah في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن مع الأبصر والسفر falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu